ngi esquiver coup di xool fu muy songe. songul Siré mayagu ko ko. lamb yëpp Sa Thiès la ci indi song ba lay wër. mais Siré Siré daf koo laalal pay bi de heure bu ci dalee da koy mboot. non ci la bëgg a bëree ci la fa la lambam ne. jël na ko Siré génne na ko. da koo gis ñaari mbër ya. Siré plaqué na ko. Siré plaqué na ko. laa ilaaha illallah. Siré Dia jàpp na de mais saa jàppagul. dafa diis. ñaari mbëree ña nga ca saa jàppagul. Siré na ko placage mais xale bi dafa diis. Siré Dia Sa kal na moytu kan lonku ca xabal lonku ca xabal mboot. non Siré Dia nga koy mboot ñu suruxal ko da koo suruxal loos. Sa Thiès a ngay wut jàpp ba. Siré ma ngi koy dajale de. mboot mu bañ. mais Siré Dia li na. wóor na féeteem suuf ba pare di ko mboot. mbootu taxal ko mais saa da koo féete kaw. mbootu taxal ko ah, lay mboot. ñaari xale yi ñaga jàpp moo ko arrangé. songale songale songale. songale nañ saako ya eh. ñëwaat ci biir gis naa combat nag. mais Sa Thiès relance bi da koy arrangé ci combat bi parce que boo xoolee fa muy soxal Siré Dia ci diggante ñaari ay tànkam à tout moment lamb ji mën na faa jeexee ñoom ñii xaw a mag xale yi ku ci xale yi def ay problème nañ teel a bëri ak ñoom. balaa gën a mit waaw waaw waaw parce que tey ëppante doole feeñut fii. déedéet man yaakaaroon na ne doole dina feeñ nag 100 pour cent. Ah, ah. waaye xam naa ne feeñu fi. doole feeñu fi. fi mu toll nag kenn ku ne am na loo tànte sottiwul. Ah, kenn ku ne dangay jàpp téye fi mu xoolaat ma neen pexe. bu amul sens tuuti nag loolu day tëj bëre bi ci première action yi bu action yi tëwee pour ñu bëre waat du yomb. loo ci mi ngi jàpp ñaari loxo yëpp ci geño non day récupérer fi mu toll Siré Dia fi mu toll moom itam mi ngi récupérer di xool Sa Thiès bu defee lan lay lan lan la koy contrer. seen combat munul yomb parce que kenn ku ci ne ndam fa dafa am fu mu lay yóbbu. ba pare xamante nan kenn umbalewu ci sa morom ñaari mbëri ña nga ba. parce que tey mu kal ko. kal na kal na dem nañ ca suuf. dem nañ ca suuf. da koy wër loxom dem nañ ca suuf. ma koy dóor. arbitre atte na